2015. waaw Choumi TV mi ngi leen di nuyu Choumi TV mi ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni vidéo fekk na ñëpp si jàmm. mais kon ne encore une di leen rappeler ñi nga xamante ne ñu door a abonné chaîne bi Choumi leen wax rek ñu naan welcome back to the channel xam mu naa ni comme rek ñu faral defee à chaque fois. waaw vidéo bi nag tey sama gars yi Choumi TV dafa ñëw pour def benn réaction quoi benn réaction ci benn you seen ci benn situation boo xamante ne sincèrement mi ngi bëgg bëri au Sénégal you seen te ñu ci bëri si ñoom sax mën naa ne seen ay message dañ koy véhiculer léegi ci réseaux sociaux yi waaw na Macky Sall su ko neexee moo xëy jour you know seen ne dafay tëj internet bi day tëj lu ko neex mais mënul contrôler li Sénégalais di def ci internet bi man Choumi nag. ma gis ni sama gars yi sincèrement waajur yu bëri responsabilité yi mi ngi si ñoom pour ñu contrôler seen ay doom waaw ñu ju bëri si ñun sama gars yi boo leen duggee ci kër yi Sénégal léegi di ngeen gis ay xale yoo xam te ne ils n'ont même pas 18 ans ñu ci bëri si ñoom xam nañ nan la ñuy manipuler téléphone portable. bu ñu génnee aussi ci loolu mun naa ne li ñuy saraan seen téléphone yi sax seen waajur yi leen jur seen bopp mënuñu ko contrôler waaw Choumi TV nag mun naa ne tey bi dafa am lu ko sabab dama ñëw tey pour avertir sénégalais yi yu fii ni parce que dafa am benn phénomène bu bees boo xam ne dama ko gis ci TikTok bi mi ngi ciy bëgg bëri muy ay nit yoo xamante ne sox sooy xool am na si ñoo xamante ne nekkuñu Sénégal mais seen ay vidéo bu ñu koy posté posté wuñu ko pour waa Europe mais pour waa Sénégal lañ koy postel ni gën a waral nag bu génn pour wax ci parce que dama gis ni bëri na ay xale yoo xamante ni dañuy dugg ci biir live yi te ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñuy seraan mun naa ne dañ leen jàppe ay référence te sincèrement duñu ay référence Choumi TV nag ñëw tey sama gaay pour waxtaan ci benn live boo xamante ne sincèrement jëmm ji ko organiser man Choumi sincèrement mënuma comprendre lan la quoi mënuma comprendre lan la ma gis ni aussi dafa am benn phénomène bi xaw ci sénégalais yi sénégalais yi dañuy gis benn affaire mu leer leen ni lii la maanaam bu ñu xoolee ni lii nan la ëllëg ñu ne lii nan la mais niñ koy jéem a rafetal nekk fa naan tàngal laa gën xamul waaw Choumi TV nag dama ñëw rek sama gaay yi ñu seetaandoo vidéo bi buñ ko seetaanee ma wax lan laa ci xalaat. Tabarkaal boo yëkkatee fii ay Abdou mayal kooku wax Abdou mayal kooku job yaa génn xeet yow sa ndey Abdou Mayel kooku wax na sa yaay kër jaar kar man won won ne te kal dafa bëgg wax bis wax wax def sama gaay non eggal eggal de eggal de wal noppi naa amul problème Abdou ndox nga am ay gan man li ma ci gën metti rek mooy gis nga ñun la sénégalais surtout nag sama mbokk xale yu jigéen yi ngeen jéggal ma dama gis ne jikko bii dafa bëri ci yéen quoi ñu ci ci ngeen gis dafa efféminé da ngeen gi góor boo xamante ne def ay manières jigéen mais yéen xale yi jigéen ñi sénégalais yi yéen koy protéger quoi sama gaay gis ngeen jëmm ji ku ko jàkkaarloog moom rek boo leen xoolee ay manière rek sincèrement du góor bu ñu war a protéger quoi gis ngeen sama gaay yi góor yàlla dëgg boo jàkkaarloog moom da nga xam ne kii góor la mais jëmm ji dafa efféminé wax leen ko dëgg mu nekk ni ci TikTok bi bi ci njëkk rek mooy premier red bi rek mooy dafa musóor bopp bi. man dama comprendre ana góor sax ak musóoru lan mooy ndeyu góor buy musóoru quoi ah let's keep going ko may buzz wala dara doo wax yéen a ngi woon ci waxtaan bu neex sànq bi ma leen bàyyee mais nekk fii di wax rek ci ay waxu nit noo def baa yaa ngi si jàmm yeah maa ngi sant bu baax ko wax te nit yi suuf sax ñu na naan bul tontu ne répond pas nit yéeng la koy bind. waaw maa ngi sant bu baax lan moo ci jar manière lan moo ci jar you know seen déformer sa kanam lan moo ci jar macc ay tuñ lan moo ci jar lam sal daal je comprends pas quoi. koy bindal. ok amul benn problème. waaye souvent nag sa day fees doo bëgg dara lu répondre daal waaw mais mais mais mais du mbaam bu la wékkee rek nga wekk ko àdduna du noonu. àdduna du noonu mais léeg-léeg léeg boo koy répondre doo ko tey. waaw ah, mais mais mais dama ne la wax Abdou lu ko nakari mu bës xolam. soo lii nii waru ko yëngal. na ngeen def na ngeen def. Abdou Abdou engagement yi bees ku la def loo nakari nga laaj adresse nga fekk fi mu nekk. nga tekkandaam lu métti loolu Sénégal la am amul Europe amul Amérique. mais dama bëgg sama gars ngeen seetlu yenn manière ndaw yi muy def non booy man mënuma comprendre sénégalais quoi ba pare ngeen nekk ci live waa ji di ko sobo neen koy jàppale. gis ngeen sama gars yi jëmm ji ne eni jàkkaarloog moom ngeen wax ko dëgg ngeen ni ko góor dafay góoree gis ngeen góor dëgg day saf góor góor dëgg ko xool doo gis lenn lu jigéen ci moom. mu nekk fi di def nii ay yéreem comme lu jigéen ñi di def. jël bopp bi musóoru nekk di manière ak di def affaire góor jigéenam yi mais wax leen kii dëgg waay ngeen ñuy sonal naan da koy protéger. daal amul la ngeen di. am Europe fi Serigne Sarr ñu ngi ci amul Sénégal amul amul Amérique. loolu am na am na Europe sa waay amul eh, seen amul Europe man maa la gën a xam Europe. man loolu yëpp bu mu la fi fekk. man jéeg mu jéeg jéeg mu wax ma jox xam adresse barke sëñ Babacar ma jox la adresse waaye bu duggee sama kër ay. adresse benn loolu aw dinaa la ko mm-hmm. xoolal kuti dama lay kuti chinois ba bis bu mu la kuddee bis bu mu la kuddee chinois barke borom daal. Abdou yow Abdou yaa ngi dégg yow góor jigéen. maam eh. ah dégg ci njëkk rek moom laa doon wax léegi ne gis nga boo leen di déglu ay expression waa ji dafa efféminé quoi mënu ma ko nag jiñ ne ne góor jigéen la parce que moo góor jigéen dafa xaw a diis quoi waaw sincèrement moo góor jigéen dafa xaw a diis te góor jigéen yu fiyel mi man su mi dama gëm ni waroo ko jiiñ benn doomu aadama fi rek amoo preuve ni góor jigéen la ni nga xamante ne mooy preuve nit ko góor jigéen lenn kese la moo nga fekk ko ñu koy sëy wala muy sëy góor mais gis ngeen sama gars yi ñi nga xamante ne ay góor jigéen ne ñëpp dama bëgg ngeen xam ne ci lañ commencé ñu ci bëri si ñoom dañoo commencé ñu koy raay raal ñuy def ay manière jigéen dem ba far doon jigéen far dégg leen kii mu toog ci laayafam bii nan ay man jeeg bu ma yàpp aw ma lan nee na jeeg bu ci doftalu ba dugg sama kër bu ma la génnee kuddu ci noir <laughs> booy góor jafe na booy sincèrement góor jafe na Sénégal quoi non billaay wallaay talaay góor jafe na man sumi gis ngeen d'ici quinze ans d'ici quinze ans vingt ans man dama gis ni góor pour jigéen amati ko non du yomb de sama gars yi lii ma gis nii muy ñëw nii d'ici quinze ans vingt ans no doo leen doxati ba góor bu dëgër man maa leen ko wax. jigéen mu ñàpp sant nga yow góor jigéen. wàccee ko Abdou lu nekk yooyu. yow ñëwee dugg Serigne Sarr yow

nekk fi naan ay man jeeg bu ma yeb sama kër nga may fekk quoi ana góor yàlla ak naan ay jeeg laa. what the fuck man this is fucking bullshit. Oh, laal kaal. Eh, yow nga. pare tey pare kattan sa ndey fële. Abdou walaay. mais comment comment la ma la yaa wax loolu bàyyil di wax loolu. allahu akbar. non kii kay saa maa tey gis na fii sama live fii gis na fii fii sama live amul xool bu ma neex ma jeeg bu ma neex lu ma neex laay wax lii ay wax kese la àdduna du ma àdduna neex ma nekk jeeg lii damay wax nii rek bu leen si bu leen si jàppee dara di wax ay waa ay lay jeeg du neex ma nekk. ma yow bu ñu sonal waa yow bu ñu sonal ak ay man damay wax nii rek ñi ko doon ñëpp nii lañu commencé ñun gis nañ fi ay am soso gis nañ fi ay ab mbaay nii lañ commencé su fekkente ne ay góor jigéen ngeen mais toog leen Europe boobu ngeen def seen fu góor jigéen ñun Sénégal mun naa ne ba àdduna di tukki duñ ko valider duñu d'accord ci affaire homosexualité kon seen yi ngeen ni ci TikTok bi bu ngeen dugal vidéo eh, dugal leen ko pour ñi nga xamante ngi Europe mais leen ko dugal pour communauté sénégalais bi parce que biir Sénégal bëri na ay xale yoo xamante même pas 18 ans ñu ci bëri si TikTok bi. du nekk jeeg tamit yéen nekk leen naan da xaw nekk naan Sénégal. da wax laa xam ne quoi du koy jëlee lee ah mooy lool tamit fekk leen ay naan tamit. yow góoreel waa yow. jigéen yi ngay sonal nit ñi ak laa taxu ma nekk jéeg ah man góor laa jéeg laa taxu ma nekk jéeg. waaye yow dimbali ñu yow góor yàlla bu ne lëng yor ay xuuram mu na mën a toog nit ñi jàkkaarloog ma mu naan jéeg laa. yow dag ñuy yàpp quoi yow li ma ci gën a metti mooy xale bu jigéen bi nekk ci live bi li ay wax rek ko ne man fi mi li ma ci gën a jaaxal mooy góor yi nga xamante ne dañoo jigéen ñu ci bëri mun naa ne jigéen ñi ñoo leen di jàppale quoi ñu ci bëri si jigéen ñi dañuy faral di nekk ak ñoom ñu ci bëri si ñoom dañ leen di support quoi ci li ñuy def. yéen ngeen war a jàkkaarloog waa ji wax ko dëgg mu nekk ci laay naan ay man benn jeeg du ma du ma fonto góor yàlla bu yor ay xuuram toog naan jeeg la. waaw da di jëlee da di jël wax quoi Sénégal mooy xëcc mooy jël tuuti quoi taawit mu nekk lu ngan loolu amul sens gis su waxee waaye ay non yéen man Abdou nag du ma jëli lu neex soo waxee dara juum dinaa la. Abdou man wax naa la. non non man waxee waxee jéem man Abdou a jël wax. taw yi ay jéeg laa ma nekk jéeg ay wax kese man damay wax. waaw yow dimbali ñu dimbali ñu góor da ngay góore. ñu gis nga góor yàlla képp ku la xool du la sax ñemee yab mais yow ku xool sax am da nga jigéen nekk ci TikTok bi def am na ñëw góor jigéen yi ba pare bañ bañ ay yow kii man mooy man est-ce que du ma vidéo bi sax. fucking shit. la man taxul nga nekk jéeg mais sénégalais moo foo wax naa la ko sénégalais ci boppam moo foo. waaye fii da ngay wax benn wax ñu jël ko di ko rëyal di ko di ko di ko di ko di ko wax bi nga bëgg a wax. yow Sénégal xam nga ni waxi jéeg dañ koy rëyal. Thierno. kon yow waxal yow jéeg nga. salaamaaleykum non non ay jéeg moom bu leen ko fi wax Abdou waaye. Eh, eh, Abdou góor yàlla góor yàlla biir na juum wax ko moo tax nag da ngay rek moo tax nag da ngay rek dëgg. ba ngeen xam ne kii juumul de gis ngeen lii muy wax nii lii yàgg na ko wax lii ngeen dégg ni muy wax lii yàgg na ko wax la ñu sonal dafa juum juumul yéen yéen a ko war a wax dëgg yéen yéen a nekk ci laayam di ko seraan wax leen ko dëgg ne leen ko sam waa ji góor da ngay góore. man dama gëm ni sa papa ak sa yaay bu la tuddeewul faatu tuddeewuñu la kumba non da ngay góore quoi. mais nag ci live bi sénégalais di la saraan man sama morom jekk nekk di sama ñeer yi di maccoog di ah oh, mais. man Sénégal xam nga man Sénégal man ah, ah man. dafay yàqu. la soxna si wax li la Fane bi ci wax. li ma wax noonu dara parce que xam nga dangaa bañ ba nga ni sénégalais bu dee yaa toog nii nit ñi jàkkaarloo yow du la yàq lu mel ni di waxuma la boo nee jéeg laa xam ku nekk ak nu mu koy gisee bul waxatu loolu te bul tontu commentaire bul tontu kenn tooga nga live sa live nga nekk sa jàmm bul tontu merci beaucoup ma merci beaucoup ma chérie sama xarit bi ma lay wax chaque jour bul tontu mais femme bi lu mais femme bu toog sa di wax ay man jeeg laa nii ak nii ak nii dégg ok. waaw. te Abdou man du ma genre yooyu nga xam ne dama lay faaloo te duma la wax dëgg. Abdou dëgg la nag loolu bu ko waxaat ndaxte ñi ndaxte ñi ñu ah, dafa bari ñu foo. Uh-huh. dafa ñu Sénégal ba Sénégal. salaamaaleykum bu ko waxaat Abdou dafa bari ñu foo nit ñi boo ko waxee foo rek après ñu jàppee ko bu ko waxaat na nit ñi wala boo koy waxaat nga bloqué ñenn ñi. eh maam Thierry. maam Dier loolu mooy lan yow ah. Abdou Mala Moustapha man la ta waaw man moom gëm naa ni quinze ans vingt ans ci kanam Sénégal góor dina fa jafe trop ni ah, wallahi taala góor dina fa jafe trop yéen xale yi jigéen ñi nag yéen yéen yéen rek ay waxal quoi ngir yàlla ak yonent bi soo fekkente ne da ngeen di diil ak genre mel ni mais wax leen leen dëgg yéen ngeen di jàkkaarloo góor boo xamante ne day def ay manière yu jigéen góor boo xamante ne dafa efféminé ngeen ko ci jàppale. man lii rek moom ci metti yu ci bëri tey ji Sénégal ci bari ñu nekk Europe nekk ci biir réseaux sociaux yi du ñu fàtte ñu ci mel ne ay am soso ñoom ñëpp ni dañ commencé woon. jëm leen sama gaay ngeen wax nit ñi dëgg quoi kii wax leen ko dëgg. you know am seen tuddul faatu tuddul kumba tuddul faatu tuddul kumba ne leen ko mu def yëfu góor. Gur yàlla yor say xuur toog ci kanamu mbooloo mi naan ay man jeeg laa yow get the fuck out of here bro en tout cas sama gars yi dama ñëw rek pour def reaction ci lii ne leen affaire bi benn phénomène la boo xamante ne mi ngi bëgg bëri ci TikTok bi film yi gën a waral nag ma génn pour wax ci parce que dama gis ni ñu ci bëri si ñoom buñ koy posté ci biir plateforme sénégalais lañ koy posté film yi su fekkonte ne ñoom ñi ngi Europe sax di ko dund foofu ñun yoon nekku ci bu leen ko jël di ko dugal suñu ay réseaux sociaux te bu fekkente ne loolu ngeen bëgg dund Europe non dund leen ko Europe ñun kenn terew leen ko mais bu leen ñu ko forcer. waaw en sama gars yi lii moo doon vidéo bi tey Choumi TV mu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous ci yeneen vidéo